ay ca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat lamb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safa wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare lamb te nag ñu ñëwaat ci jàngat làmb ji mbokk yi bu ngeen gisee baat bi nu mu deewee nga xam ni démb dafa nekkoon ñaari journée yoo xamante ni dafa amoon làmb ji jëy seen moo ko tëggoon jëy production grand combat bi doxoon ci diggante Tapha mbër ak xale bi di Liss Ndiago mu nekkoon combat boo xamante ne combat bu neex la ci moment boobu làmb ji di am euh, semi de nocturne la ñu def stade Jom Iba Mar Jax production moo ko organisé woon mu doxoon ci diggante Serigne Ndiaye 2 ak xale bi di Cobra mbokk yi ci samedi bi euh, Big Pato Events moo organisé woon journée bu mag dox ci diggante ba Big Pato numéro de mi nga xamante ni moo jóge Allemagne. merci euh, mu ñëw ci beneen combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante bi Pato numéro 2 moom mi nga xamante ni moo jógee Hollande fas yéene laaleeg Pape Diouf Pape Diouf nag bu ñu ko waxee sa xel day dem ci suñu papa Serigne Ndiaye muy doomu Serigne Ndiaye ñu fas yéene laale fële ca arène nationale mu nekkoon combat boo xamante ne gis nañ fa wane nañ cosaan wane nañ aada wane nañ culture gis nañ tubaab buy njuug gis nañ tubaab bu rango Senghor gis nañ tubaab bu takk dàkkal ndaam ndeysaan ñu baal ñu waaye wax nañ ko ci biir reportage bi ñu ne tubaab bi def nga lu sa maam defut waaye def nga lu sa baay defut indi nga sa cosaan ñëw nga ci cosaanu réew mi li nga xamante ni ñun ñoo ko moom mooy làmb nga ñëw fas yéene ànd ak ñun ci ni ñu koy defee tubaab bi sotteeku na saafara takk na dàpp ak dàkk ak ndaam sol na rabal ngémboo na service lépp loo xamante ne aada la ak cosaan tubaab bi defoon nañu ko dañuy dem stade arène nationale xool tubaab bi ak ki nga xamante ne mooy Pape Diouf seen xeetu bàkku ak ambiance bi am ci làmb ji su ko defee ñu dellu siwaat ay ca ñu dem ilaha illallah awaay bi patron numéro 2 xamal ma tubaab bi ni muy jafe-jafe la ilaha illallah awaay ñëw nga foo xamul waay day nga xam lépp dëgg def. ça va yaa ngi ci jàmm. magnifique. yaa ngi ci jàmm. yaa ci jàmm. yaa magnifique alhamdulilah yaa alhamdulilah. noo ñëwee noo ñëwee. jërëjëf. jërëjëf lan ba yow kay bala ngaa jërëjëf baal ba combat bi jeex noo ñëwee. What you come here? What you come here? In French? Yeah, in French. It's okay? Oui. Je suis très honoré, honoré with, euh, avec votre accueil. Oui. Je suis euh, ici étudiant de culture du Sénégal. de combat Sénégal en dan lutte avec frappe. Ouais. dina yomb. qu'est-ce que c'est. combat bi dina yomb. du yomb. du yomb du yomb. pourquoi pourquoi pourquoi. pourquoi. bàyyi wat bàyyi wat. liggéey rek. liggéey rek. da nga liggéey. liggéey rek. da nga liggéey. liggéey rek. ouais ouais. prêt pour fight. waaw waaw waaw waaw waaw. fight. fight. waaw waaw waaw. gauche. bien. je suis préféré. left left. ma mu ñëw Sénégal kay. ma left left left. mbokk yi gis ngeen tubaab bi ni mu tuusee gis ngeen ko ni mu ràngoo ay bagaas gis ngeen tubaab bi li mu doon def ci soo. mu ak Pape Diouf muy wane ni senegal réewu teranga la ndax vraiment tubaab bi bi mu ñëwee ñi ko ëmb ay doomu senegal lañ gis nañ fa Ziza gis nañ fi xale bi nga xamante ni ndeysaan Big Pato sax mi tëgg làmb ji dafa ñëw ànd ak moom tubaab bi di ko soutenir gis nañ laa sana ñu jàppale ko te senegal loolu lañu xam senegal benn bopp la waaye kenn mënu koo xar ñaar te teewul suñu diggante ak Pape juuf day gën di rafet ndax doomi Sénégal la nit nag boo ko dalalee da koy teeru taral ko gis nañ Pape juuf bi làmb ji jeexee vraiment mu akkalaatanteeg tubaab bi saafanteeg moom. li ñu doon bañ mooy bëre bëre bu am dóor am na fépp ci àdduna fépp dëkk yu bari ci làmb ci àdduna bi am na bëre bu am dóor mais bëre bu am ngemb nga takk gàllaaj ah bëre bëre bu rafet boobu Sénégal rek la am. ñuy félicité waat Pape bu baax ndax bu xeexoon xëy na li ñu war a mën a jaay ci suñu làmb réew mi du yomb dañuy dem xool grand combat bi diggante Pape Diouf ak Big Pato 2 su ko defee ñu dellu si waat ay ca ñu dem. Ndeysaan. tubaab ba moo la féetee càmmoñ. Big Pato mooy tubaab bi moo xees ndaysaan cokkaas na Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Big Pato ndaysaan Pape Diouf liñ mooy bul ko dóor fexeel jàpp ko ndax mën ngaa dóor jël kuwam Pape Diouf Big Pato Pape Diouf Big Pato jàpp na ko Pape Diouf jàpp na Big Pato Pape Diouf sol na ko lu mu bañ na Pape Diouf Big Pato bañ na Pape Diouf daw na jëlu ko mu ngi doon na koy perkit laay ay Pape Diouf mi kafu de bi door na ko tubaab door na Pape Diouf daan na ko Pape daan na Pape Diouf daan na Big Pato numéro daan na ko Pape Diouf jëli na ko daan ko Pape Diouf daan na Big Pato Pape Diouf daan na ko ay ca gis ngeen combat bi noonu ni mu demee Big Pato mu ngi doon xeex xeex bu baax bu am solo ku yooyu mu doon sànni tey bu daloon Pape juuf kaaw mën naa am ci làmb ji waaye Pape Diouf daf koo liir daw jàll sàcc ko. jàppanteeg moom daan ko jël bu amul benn werante ñu ngi koy félicité bu baax mbokk yi noonu la ñuy def rek barastiku fi nga xamante ne mooy arène nationale ci dimanche bi jéy seen moo ñu fa woon grand combat bi doxoon ci diggante dafa am mbër ak Liis Njaago mbokk yi ñu dem wan leen lépp loo xamante ne xew na fa ci ambiance dugg si tafa am mbër dugg si Liss njaago seen tuus ambiance yi nga xamante ne jot naa am ci làmb ji ak combat yi ci jot a xew su ko defee ñu dellu siwaat ay ñu dem bugguñu sax lu yomb. lii nga wax moom loolu la wax te ñaari dëgg mun tànd. non incha allahu rabi yàlla mi may ndam yàlla nañu yàlla may ndam mais pare nañ lépp lu ñu war def. lépp lu ñu war a def pare nañ ko te incha allah bu duggee ci géew bi dina xam ne kii mooy bu xeexee bu bëreeg lépp incha allah damaa jël sama ndam te incha allah yàlla mi maye yàlla na ma ko yàlla may bu xaaree incha allahu rabi li ci kanam raw li bët dañoo gis Rock ñu doon gëj gis tey ñu gis leen tey sa bés loolu mooy yoon parce que tey ñun li ñu bëgg mooy Parcelles ak Couleur Rock Énergie jëm ci kaw ci kanam. mbokk gis ngeen ñu ñëw ci combat spécial bi dox ci diggante Paul bu daaru moo fa laaleeg mix mu nekk combat boo xamante ni vraiment Demix ñëwaat na ci làmb dañuy dem xool komba bi su ko defee ñu dellu siwaat ay ca ñu dem Demix Paul bu eh, bu daaru dóor na léegi bi fi jugee maam moo ko daan demix demix da daanu da daanu Paul bu daaru plaqué na ko mu daanu Paul bu daaru demix jël ba mu jël baaxul demix daan na ko. ay ca mbokk yi gis ngeen combat bi doxoon ci diggante Paul bu daaru ak demix demix vraiment da ngaa gëj a bëri da ngaa perte repère c'est normal. de mix mu bëreeg mbës day mix mu bëreeg Zos Junior day mix mi nga xamante ni jamonoy bàcc séerance day mix mu ngi woon ci lancé bu am solo boo ñëwaatee ci làmb bëree ni nga bëree Paul bu daaru daan la danga perte repère amul lenn lu luñ la war a wax mooy da nga perte repère yaa ngi woon ci làmb ji mais Paul da laa sàcc bëreeg yow daan la jël bu amul benn werante ñu lay encouragé di féliciter Paul di ko wax làmb noonu la dégg nañ kombaam bi taxaw. diggante ma xeeru ngor numéro 2 ñu ngi xaar parce que combat boobu komba wu xale la. combat la boo xamante ne àdduna bépp ñu ngi koy xaar combat amateur la aussi dañuy dem ci grand komba bi doxoon ci diggante liis Ndiago ak Tapha Mbeur ci digg géew bi ñu dem. ki nga xamante ni mooy Tapha Mbeur Liss Ndiago bi fi mujjee. Ada Fass a ko daan bolo boog Tapha Mbeur bi mujj Ada Fass a ko daan Liss bi mujj moo daan ki nga xamante ne mooy Caatu Rebeuss ku ci nekk ñoom ñaar am nga benn avertissement arbitre baa ngi laaj ay jugeam laaj na Tapha Mbeur laaj na ki nga xamante ne mooy Liss bàyyi ji li nga ñaari mbër yi Tapha Mbeur la mooy avantage am ci làmb ji kii Liss Ndiago la mooy avantage am ci làmb ji bàyyi ji waaw Ousseyn ñoom ñaar ku ci nekk dafa am lu nekk sa mënin Liss Ndiago tay su doon maay moom damay jàppanteeg dafa am mbër bëre wuureeg moom ci bëre ba nax ko Liss Ndiago tay avantage am du woon xeex ak dafa am mbër dafa am mbër a ngi ma na lu muy arrière dafa am mbër na génn saako yi sortie délibérée la def loolu nag am na lu ko ci règlement bi wax mbëri nañu bàyyi tegtal bu bari bi ndax tegtal bu bari mën naa yàq làmbam dafa fi mu toll ni mooy bëre te pour mu may booy bi confiance mooy mu wan ni ko dama laa ragal booy bi agressé ko dox ci ko am bëre dafa am mbër daal avantage mooy mu jéem a xeexal riis daa ko jàppanteeg moom en tout ñoom ñaar ku ci nekk pare na combat bi respecté na combat bi Ousseyn te combat gaaw lay doon. dafa mbër jàpp na liis wala boog liis jàpp na dafa am mbër abir sëb la léegi door na moom tafa dooraat na door na ko mu daanu dafa mbër door na ko mu door ko mu daanu. mais door bu mujj bi du yoon Ousseyn dafa am benn door na ko mu daanu mais da koo door mu daanu mu dooraat ko loolu rafetul ci làmb rafetul ci làmb da koo kaawoo xoolal supporter yi xoolal supporter mbokk gis ngeen komba bi ni mu jàllee noonu dox ci diggante Liss Ndiago ak Tapha Mbeur Tapha Mbeur ñu ngi koy félicité Tapha démb gis nañ beneen Tapha Mbeur bu bokk toog biñ doon séentu ci làmb démb da ngaa wone bëgg bëgg nag mooy xemmemteef ci mbir mi démb wane nga ni làmb ji du catégorie bi ñooy say morom parce que da nga dugg si ñu gis benn Tapha Mbeur bu bëgg bis bi ñu gis benn Tapha Mbeur bu concentré wu ci bis bi ñu gis Tapha Mbeur boo xamante ne communication bi mu daan def sax da ko wàññ c'était la première fois mu gis Tapha Mbeur di bëre grand combat deful sax open press parce que wane na ni làmb ji dafa am lu mu ci war a wane waaye du wax Tapha combat bii li nga ci wane boo ko wane woon sa diggante ak Ada mun naa bañ a demee noonu waaye defet bu ne day jàngal mbër ndax boo bëreeg maam Balla top 5 mu daan la nga bëreeg Ada mu daan la nga jël liis njaago xoolal ci escalier bi nga jógee maam Balla ndaanaan la ci lam ku bëreeg Moussa Ndoye du mbër mu ndaw nga bëreeg moom mu daan la nga bëreeg xale bi nga xamante ne mooy Ada daanaka mën nañ ne yaa ko may sens mu daan la booy bëreeg liis njaago c'est normal nga indi li nga indi. ñu ngi lay félicité bu baax bëri nga ak manière waaye dóor mu daanu bi surprise la ci ñu bari ci làmb yaakaaruñu woon ni dóor mu daanu mën na am ci làmb ci liis njaago ñuy taxaw seetlu ci yow liis xale nga sooy bëree mbooloo mu bari dañu lay topp jóge jàmm a gën ànd ak yow nga wane bëgg ci làmb ji xëy na tax fi nga toll nii ci làmb wala position bi nga am nii ci làmb mbooloo bi nga ànd ak code de popularité bi nga am moo waral nga bëri Tapha Mbeur ndax boo bëree ba si yàggul nga tëb ci étape bu bari bëree mbër mu mel ni Tapha Mbeur su ma la doon conseillé ci làmb ja bi nga dugg see da waroon ànd ak dal xam ni tey combat xale la ak mag malgré yéen ñaari xale ngeen mais Tapha Mbeur moo la jiitu ci làmb xale la ak mag da ngaa war a ñëw confirmer mais fecc bi dafa bari liis li nga fournir ci fecc bi dafa bari liis li nga doon soo ci làmb ji dafa bari te làmb ji làmb dal la woon. da nga dem ba da nga fournir effort bu baree baree baree baree bëri te effort boobu ngay fournir noon na la perte loo sa combat ci bëre bi nag vraiment am na erreur boo xamante ne def nga ko mooy da ngaa teel a jàppanteeg Tapha Mbeur wara woon daw rek jàppanteeg Tapha da nga ko waroon woo ci xeex ba mu yaakaar xeex nga indi nga daw jàpp ko mais arbitre dañ na bëreet rek Tapha Mbeur wan ni la dama laa ragal te ragalu la ngeen bëre mu daan la jël bu amul benn werante lii ñu lay encouragé. di la wax ni làmb noonu la gën a la góorgóorluwaat ant nekkaat ci say entraînement ñëwaat ci làmb jàmm gën bëgg nañu la supporters yi bëgg nañu la te boo ñëwaatee ci làmb nga wane waat leneen lu bokkut ak li nga indi bémb dañu nit barastiku rek dem fi nga xamante ni mooy stade Jom Iba Mar moment bi ñuy dugg si ci stade bi ci la gars yi di sol suuf bi ci digg géew bi moo lay wan làmb ji semi de nocturne bu la waaye combat bu neex gis nañ fa cosaan gis nañ fa aada gis nañ fa ay mbër simple yëpp bëri nañ fa bëri bu am dóor dañuy dem stadium Iba Mar te dellu siwaat ay ca ñu dem aadama xoolal njool la mu takk ci loxo bi bu teel la de xoolal décor yi mu laal xoolal la mu seex ci gémmiñ ga xoolal socc ba ka waxal nag bëgg naa xam kal la waaye <laughs> doo ko mën a xam boo demee sëriñ si lay waxal heure bii amul jot di wax ak kenn duggeel tànk ndi waxal lii butéel bi ma la jox dee ko laal loolay làmb ma ngay ree ndeysaan njool njool nuy naa la. waaw fay naa la. maa ngi am sant yàlla bu baax. ay bis rek incha allah. xam kooku après lay comprendre. li Sakal 2 laay bëreel. Sakal 2 men. Sakal 2 waaw. mais am na peleñaa tey. am na peleñaa. tey dama koy bëreeloo ba mu gàll. xam du day yomb. déedéet day yomb kon. wax ko nga say supporter. yàgg na. ngay cons. laa te dina Bamba. ay jël jool maa lay xaar ci biir. jeex na maa ngi ñëw léegi léegi. waaw waaw. am àll bi ordinateur. ma noonu ndeysaan. xool ko. ordi di dugg si. ordi noonu di dugg si Adama. ordinateur a ngi noonu di dugg si moom mu ngi ñëw ci compétition bi ndaysaan Jax daal ndaanaan yi mu boole ku ci nekk miin na ci li mu ñëw ku ci nekk ñëw ci li mu wuy si ordinateur a ngi noonu léemu na ma ngay léemu ma ngay léemu ma ngay léemu moom ordinateur tubli ci kanam gi ordi bis bi lu mu laaj waxut de ndeysaan làmb gi ordinateur borom dëkk bi moo dugg si noonu am na beneen mbër bu ñëw Adama am na beneen mbër buy ñëw. sama fils sama doom la. ay wax naa la booy yëpp samay booy lañ. noo tudd. waaw Dragon 1. waaw euh, Sabala 2 Modou Sabala. waaw Modou Sabala waaw. Ah. waaw. combat booy bëre. guddi gi ñu def ko semi-de nocturne noo ko gisee. waa dañuy kontaan rek xëy na xëy na xëy na du coobare ni suñu coobare sax waaye comme amuñu stade. wala stade bi boog moomuñu ko beneen stade bi am na ñeneen ñu fa nekkoon. kon li ñu mën a def mooy xaar rek. takk ngeen ba. waaw 17 heures laa takk nag. 17 waaw. Ah. waaw. waaye dina neex. neex. maay diriger man maay diriger. incha allah waaw waaw. gis ngeen stade Iba Mar mbëri ni ñu dugg see Serigne Ndiaye de dugg seem gis ngeen dugg si euh, for euh, euh, gis ngeen dugg si ordinateur ak xale yi nga xamante ne ñoo ci doon bëree gànja faama iboo bu kër mbay Fall gis ngeen yeneen xale yi ah gis ngeen birinoo dugg si bi mu dugg si ah njool bu njool njool njool njool bu rëbës xale boobu nga xamante ni moom it dugg si na ku ci nekk dugg si ne wane ni moom moom moom làmb ji mbokk yi dañuy dem ci combat yi ci am combat espoir yëpp su ko defee ñu ñëw ci combat Euh, ñu ñëw ci combat yi ci xew yépp ñëw ci komba spécial bi su ko defee ñu dellu si ci plateau bi ñu dem te ñëw Adama. dara amagul. Drago doo ak Mourou Sabala Mourou Sabala door Sabala Drago jël na la Sabala dara amagul de. Pago 2 jël na ko takk na ko wéyal na ko eh jëri Mourou Sabara takku Sabara bii 24 la bëgg ndaanaan la Mourou Sabara jël na lool daan na Mourou Sabara daan na Drago 2 win fee yàggul de. waaw Lirou bu Ngor ndijoor nëpp moo la féete càmmoñ Lirou jokkaas na nëpp sàmmal ma sa tànk Lirou Mbadou jëm sa tànk yi jël na tànk ba jël am na quatre appuis am na nëb daan na ko nëb daan na nëb daan na nëb daan na Lirou nëb top 5 lan moo nar a xew Ngor Ñaax top 5. top 5. top 5 na. daw na jëli ko. daw na jëli ko. Ngor takk na ko. Ngor takk na ko. top 5 bañ na ah top 5 mi mbër la ah. top 5 mbër la ah. ndaanaan la ma ngay xeex. ma ngay dóor. top 5 dóor na ko. dóor na ko du ko dóor mu daanu. top 5 dafa wex Ngor daan na ko. top 5 dóor na ko. waaye Ngor daan na Ngor ñaax top 5. Ndiol jamono Sakal ñu ngi jàppante ba tey dara xewagul. Ndiol jamono Sakal. Ndiol jamono Sakal. lan moo nar Ndiol Diamono Sakal daan na ko daan na ko Sakal daan na Ndiol Diamono Ama bu Ngunjaan Amady Badiane li waatoo ba bar na Ama mëb na léegi waaye demul leer na ñëwoon ba jël na ko moo ngi takk na ko mbot ama bu ngu ñaan daan na mu di bayaan ama ama bu ngu ñaan daan na ko boo jaatu maalaw boo jaatu maalaw boo jaatu maalaw daw jël ko boo jëli na ko Ibe jëlu na ko Caatu Malaw tëru na ko ñoom ñaar lu xew Ibe Caatu Malaw Ibe Caatu Malaw luy xew Caatu Malaw bañ na Ibe ngi bëgg a tànte Caatu Malaw yóotu na tànk bi Ibe bañ na xale yi Kër Massar yi ñu ngi ne teg Ibe Caatu Malaw gisuma waa Grand Yoff waa yëngu wuñu xar na ko bi baax na bi baax na takk bi baax na Ibo daan na ko wala déet bi daan na Daaru mën na laa dóor nga daanu soo daanoo xeex bi relance bi loxo dafa jóg Gandia Fama Bébé Daaru Bébé Daaru moytu tànk bi Gandia Fama daa bëgg a jàpp mayul Bébé Daaru moytul ndeysaan Bébé Daaru Gandia Fama Gandia Fama Bébé Daaru Gandia Fama Bébé Daaru ndeysaan Bébé Daaru Gandia Fama Gandia Fama daw na jëli ko daan da daan daan na ko daan kay da daan daa mën a bëre Gandia Fama daa mën ci diggante ordinateur ak Birima Adama ne takk der ko dóor épaule waxul bu doon man la bu yàgg tontu na ma <laughs> jërëjëf ordinateur ak Birima ndaysaan sama xel dem na ci Birima Messi ndaysaan ordinateur Birima ordinateur Birima Birima dóor na cokkaas na dóoraat Birima dooraat na war woon jàppante Ordi jàpp na ndaysaan Ordi jàpp léegi mu léegi mu jeex ordinateur Birima luy xew lan mooy xew Birima ordinateur ngay fay waa ah. ordinateur ngi door ci suuf sikki daan da daan da daan Ordi da na ko ba ci door na ko ci suuf jeex na jeex na oh! Boy Niang numéro 2 daw na kott ko ordinateur ordinateur waaw ñuy félicité bu baax ñi ci bëre ñëpp am ci ndam gis nañ xale bu mel ni Ngor ñaax confirmé na gis nañ ordinateur vraiment moom dinañ ñëw ci moom gis nañ xale bu mel ni Ganja moom it ñëw na confirmer Ibo bu Kër Mbay Fall ñëw na confirmer ñett xale yi yëpp ay mbër lañ yoo xamante ne ay li traditionnel la ñuy bari ci lu ñu koy def waaye wanewaat nañ seen bopp ni bëre dóor bi am nañ ci cër wanewaat nañ seen bopp ni bëre dóor bi am nañ ci wàll ordinateur ak Bruno ñoo bëree spécial bi ordinateur li ma waxoon loolu la def ci làmb ji Bruno euh, relance bi mu am wala ta ni mu bëree ordinateur waroon naa sàcc daw bëre bi indi xeex boo xamante ni da ngay jam di déplacer mais nag def nga erreur mooy ja da ngaa woo naar ci guuxum soow muy ordinateur mbëru simple la te macha allah dafa mën a bëre. moo tax bi mu la jàppee ci biir reportage bi nee naa làmb ji jeex na ndax làmb ji dafay jeex ñuy féliciter ordinateur bu baax di féliciter tamit écurie euh, Boy Niang bi mu nekk gis naa waa Pikine yëpp ñëw. Boy Niang numéro 2 gis naa ko gis naa déggool gis naa Kalmu gis naa xale bi nga xamante ni euh, mooy beneen xale ba waaye mbëru simple ba ñoom ñëpp ñëw nañ dooleel xale bi nga xamante ni mooy ordinateur dooleel ngóor ñaax loolu lañ doon séentu ci ñoom mbokk yi ñu dem ci grand combat bi doxoon ci diggante Serigne Ndiaye 2 bu Fass ak Cobra waaye balaa ñu leen wan Serigne Ndiaye 2 bu Fass ak Cobra ku ci nekk damaa dem ci euh, entraîneur am jëli ko entraîneur yi lii la ñu wax kii nee na na mbërëm bëre kii nee na mbërëm na xeex nañ dem déglu ñaari entraîneur yi lu ñu wax te dellu si waat ci grand combat bi ay ca ñu dem. Père Palla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay maa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax. xam nga waajal nañu ko comme ni ñu ko daan waajalee rek. combat challenge la ñaari xale lañ yoo xamante ne làmb moo leen boole. Euh, li ñu ko war a def yëpp wax nañ ko ko li ñu war a def ak moom def nañ ko. li ci des nag moom mooy mu appliqué li mu war a def parce que kay bërekat simple la te lii bëre dóor la kon boo privilégié bagaar bi mën naa mu ëpp sens que muy nangu di bëre moom li traditionnel su privilégié bagaar bi départ euh, mën na am dara ci waa yooyu yëpp nag wax nañ ko ko mi xel li ci mooy ñaanal ko pour yàlla may ko ndam daal. yéen da ngeen koo yab ci mu indi ko pour mu xeexal Serigne Ndiaye. waaw parce que fi nu toll nii bagaar moo ko gën a gaaw a génne ci combat bi kon il mu xeex doo ko bëre. kon combat bi séntu ngeen mu daal kaaw mën na ci am euh, ko bëre xeex. jeexale ko bëree mën na ci am. maa lay jaajëfal bu baax. jërëjëf jërëjëf. nga xam ne bisu xale yi la lambu xale la malgré que guddee na mais lii moo leen Sénégal ñun lamb lu ñu am. donc na état bi jóg autorité yi jàppale lamb parce que handball bi tey amul fay mënoon nañ ko yóbbu feneen bàyyi lamb ji continuer kon depuis 9 heures ñëpp ñibbi nañu mais lii moo leen Sénégal lamb rek la ñu am. nan ñu stade bi est-ce que du stade handball ndax stade bi moom ñoo ko moom mais Watgal ak Yégo ko. mais bi xamee ne gratuite la te lamb ji promoteur bi sonn na ci mbëri sonn nañ ci nañ waxtaan rek nekkal comme ñoom dañ koy def parce que la boo xam ne amul fay ñu dem université wala ñu école de police même bu ñu laajee leen dolli seen kees loolu lépp jàppalante rek la loolu wàññiwul dara. ngeen indee Serigne Ndiaye 2. non boo gisee Serigne Ndiaye 2 tey ni mu duggee gis ko ba mu duggee nga xam ne ñaari xale ku ne nekk ku ne tey jël nga décision ne maay moom ndam li mais nag suñu mbër liggéey ak li yaakaar gis nañ ko ci moom te xam na ne nañu ko bu soobee yàlla suñu borom dina ko may ndam. xeex wala bëre. non tey bëre ba ëpp na xeex bi. ragal parce que bu ñu bu ñu koolaa koolee am. combat bi mujj fii la mujjee bëre daa dóor mu daanu. moom Serigne Ndiaye tey mën nañoo séntu mu dóor Cobra. non tey bëre sax la war a def nag. waa ji moo war a fay mais Serigne dafa war a bëre jàpp daan ñi bi. ay ca mbokk yi ñu ñëw ci grand komba bi gis nga li xew ci grand combat bi gis ngeen li li li ñi nga xamante ni jot nañu ko wax muy ñaari entraîneurs yi bi ma demee ci suñu pàppa père Serigne Ndiaye daf ne Serigne Ndiaye de tey digaluñ ko mu xeex dañ ko digal mu bëre ndax mbëru bërekat la tey dañ ko fexe rek na ñëw jàppante bëre ñu am luñ ci jànge ma dem laaj Pierre Pala bi nga xamante ni moo indi Cobra moom it mu ne Cobra digaluñ ko mu bëre mais dañu ko digal mu xeex ak Serigne Ndiaye te loolu tamit lañ doon seentu ci Cobra mbokk yi dañuy dem ci combat bi xool Cobra xool Serigne Ndiaye 2 fu combat bi mujj su ko defee ñu ñëw ci jàngat bi ay dem. Cobra Pikine Mbolo. Serigne Ndiaye de moo la féete ndi joor ngemboo ngemb lu vert li Senghor yu rouge yi arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche na jëli ko Cobra na jëli ko na ko Serigne Ndiaye daan na Cobra Serigne Ndiaye daan bu faas daan na Cobra daan na Cobra Serigne Ndiaye doo daan na ko oh! combat bi dafa gaaw Cobra daanu ko jël bu la bett daanu ko jël bu la bett daanu na jël bu ko bett oh! mbokk gis ngeen grand combat bi noonu Serigne Ndiaye 2 daan na Cobra jël bu amul benn werante kon Serigne Ndiaye lañu ko conseillé indi na ko parce que neewoon nañ ko bëreel ak moom mu bëre Cobra Cobra lañ ko conseillé indi na ko mais dafa am erreur bu mu def ci biir combat bi mbokk yi ñu ñëw ci Serigne Ndiaye 2 moom mi nga xamante ni tey moom moo bëre làmb ji Serigne Ndiaye dugg si nga ci làmb ji. àdduna bépp xam nañ ni bi nga dugg see ci làmb ji dugg si nga dugg si ku indi ndam Serigne Ndiaye ñu bari ci làmb gis nañ ni macha allah gabari bi mu ngi fi taay bi mu ngi fi mais am na lu ñu seetlu Serigne Ndiaye démb da ngaa wéet ci làmb ji ñi la waroon accompagner ci mbëru faas yi gisuñu leen bëgg nañu xam àndal lagrose gisuñu ko ci open press bi gisuñu ko ci làmb ji bëgg nañ xam ana giri 2 gisuñu ko ci open press bi gisuñu ko ci làmb ji Gris Bordeaux ñu ngi koy félicité bu baax ñëw na ci làmb ja gis nañu ko mais Serigne Ndiaye ci wàllu mobilisation dafa des démb ni ngay bëree Cobra Cobra nekk mbër moo xamante ne lu mat 4 ans ngi ni bëriwul mu ëpp la supporter ci làmb ja te nga dëkk ci buntu stade bi xoolaatal sax taxawaay ci làmb xoolaatal sa mobilisation bi nga xamante ne war nga ko def ci làmb démb vraiment ñëw nga ci làmb ji waaye li nga indi ci làmb ji ci wàllu mobilisation dafa néew. ci mbër moo xamante ni jàpp nañ ni say naataangoo du fii ci làmb te it promoteur bu yëkkatee xaalis bu bari di la fay mobilisation moo tax bàyyi bàyyiwaat ci xel bu baax waa écurie Fass bàyyi ci seen xel bu baax goney Médina wala autorité yi nekk Médina bu dee xale bi dafa manqué jàppale ñëw leen ngeen jàppale ko ñu dellu si ci Cobra mi nga xamante ni tey moom moo ñàkk combat bi Cobra dugg si nga wane ni da bëgg làmb ci Cobra bi nga simmee ko macha allah gis nañ ni liggéey nga mais dafa am erreur boo def ci combat bi waroo bëreeg mbër mu mel ni Serigne Ndiaye 2 nga xam ni ñëpp xam nañ ni mbëru simple la bu jàppee làmb ji mën naa jeex nga jeganteeg moom. xeex bi danga ko waroon may distance bu sori buy ñëw buy daw di ñëw nga seen ko foo fu mu taxaw nga fekk ko fa di ko jam gauche droite gauche droite parce que da ngaa waroon xeex di xeex ak moom rataraal mais doo ñëw fekk si ko ci ak sam bëgg a bëreeg moom noonu. erreur nag bu amul doo bëre doo daanu te làmb noonu la ñaari ndab mooy dugg si mais benn mooy génn yàlla moo tuddoon ni Serigne Ndiaye 2 mooy am ndam sa kaw ñu ngi koy féliciter bu baax di la encourager yow Forza euh, yow Cobra di la wax ni sa place ci làmb ba tey yaa ngi fa Serigne Ndiaye 2 am na ndam fan la jëm ah man nag sama xel dem na ci Serigne Ndiaye 2 ak xale lébu bi waaye xale bi dëkk euh, euh, jam ñaajo waaye euh, ka nekkoon ci Eumeu Sène Zayan ba rek Ousin dimbali ma Jordan jërëjëf Ousin Serigne Ndiaye de Jordan pourquoi pas combat la te Jordan a ngi nii amul ay adversaire war nañoo mën a bëre dégg naa ko muy laaj booy Niang numéro 2 waaye teel na borom bitigu mbagg boo gis boo xaree dënn bi magasin nga fay fekk c'est normal nga laaj ku la neex mbokk yi loolu leen indiloon ci jàngat làmb ji di jaajëfal aadama le cadre des cadres moom lañ ci àndaloon di ko béggee bu baax a baax a baax di leen jaajëfal di leen wax ni mbokk yi ñu ngi jëm ci journée bu mag dox ci diggante guy gi ak rëg-rëg dimanche bi ñu jëm waa GFM ko organisé open press guy gi altine la lundi 17h mu ngi koy defee fëla nga xamante ne mooy aseg na rëg-rëg mu ngi koy def mardi mu ngi koy defee ca caaray géej mbokk yi dinañ leen ci won lépp loo xamante ni ñaari mbër yi ñu ngi koy waaj ci wàccaay di leen jaajëfal mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf.